waa ni ma ko gisee fii ci pavillon Sénégal dañuy sant yàlla di wax alhamdulilah parce que yombul nga nekk sa réew ñu tànn la indi la ci réew bu mel nii nga ñëw représenter sa réew kon dañuy wax sant yàlla alhamdulilah te bi ñu ñëwee fii nga xamante ne mooy pavillon Sénégal bi fekk nañ fi euh, directrice euh, Zahra Iyane mu liggéey fi liggéey boo xamante ne liggéey bu mucc ayib la ba nga xamante ne képp koo xamante ne jóge nga Sénégal bi nga ñëwee ba gis euh, pavillon bi ni muy demee euh, président Macky Sall ñëw fi gis ko euh, kontaan nañ ci li nga xamante ne moom la liggéey kontaan nañ lool ci biir pavillon bi macha allah. waaw dama ñëw exposé yi nga xamante ne ñu ngi koy liggéey sunu réew Sénégal nga xamante ne ay collier la collier yi nga xamante ne perle la naar yi bëgg ko lool. ak euh, bracelet yi nga xamante ne en cuir la ñu koy liggéey sunu réew Sénégal ak uppukaay yi nga xamante ne vax la yii yëpp ñu ngi koy liggéey Sénégal voilà ak euh, beurre de karité yi ak euh, savon noir yi yëpp ñu ngi ko indi li nga xamante ne tamit ay porte-clés la moom tam ñu ngi ko liggéeyee ci réew mi Sénégal mi ngi nii yii yëpp foofu lañ ko defaree voilà ñu ñëw indi ko fii nag pour fexe def sunu business daal. waa naar yi moom macha allah lépp dañ ko bëgg parce que dama yàgg dem ci seen réew yi di def wàllu jënd ak jaay donc li ñu bëgg xam naa ko li nga xamante ne macha allah li ma indi ci bagage yu sew nii yëpp bëgg nañ ko li nga xamante ne moom mooy beurre de karité moom la ñu gën a bëgg waaw. waa ñi ngi sàkku ñi nga xamante ne ñoo ŋànk euh, yenn secteurs yi te nga xamante ne dañu war a mën a jàppale artisan yi ci au niveau du Sénégal ñu gën a taxaw jàppale artisan yi parce que kenn ku nekk xam na ne euh, secteur informel rawatina secteur artisanal ñoom ñoo yor réew mi donc li nga xamante ne moom la Zahra Iyane def nii ñëw indi artisan yi jàppale leen te seen ñaar dërëm demu ci kon vraiment bu ko ñeneen ñi ci des ñëpp demee defee euh, dina tax secteur bi dina gën a développé waaw. <laughs> macha allah ñu ngi sant madame la ministre Zahra di ko gërëm di ko ñaanal yàlla lépp lu mu yóotu yàlla na ko yàlla yeggal si jàmm salaam ndax lépp si mbaaxam la ak yaatalam. ndax dañ ko daan dégg rek waaye ñun mosuñu see bokk kon ñu ngi sant yàlla di ko ci sant di ci sant tamit tam suñu président bu ngaay bu ngaay muy sëriñ Assane Kassé moom tam ñoo koy nuyu di ko ziar di ko ci sant bu baax a baax moom ak jarbaatam waaw ñu ngi leen di sant gërëm bu baax ndax moom lépp seen jàppatal la ndax mënoon nañu kaa yemalee ngaay wax dëgg yàlla ba ñu see mën a sédd waa Meewaan waaye ñun ñoo ñoo ci boole ñun waa Meewaan ñuy liggéey wàllu vanari ñun Meewaan ñooy liggéey vanari moo tax ñu ñëw fii ci exposé bi di sant. ah jënd bi moom amagu solo moom noonu waaye nag xam naa yàlla baax na seen borom mi ngi ñëw ñu sant yàlla daal. <laughs> bon expo bi euh, en fait dañu doon tirage ñun suñu corps de métier euh, yàlla def ma am chance sama tour génn loolu moom mu indi fii quoi. Hmm. bon bijou bronze ak bijou xaalis ak quelque sambala mais yi ma defaral nag sama bopp. Mhm. waaw euh, honnêtement euh, comme que bi mooy deuxième jour bi voilà euh, ñi fi ñëw ñëpp dañu bëgg touche africain bi waaw ça les fait plaisir loolu même su dul benn jour bi jaayuñu ñu li ñu bëgg yëpp mais ku ñëw di ñu ne sa bijou bi dafa rafet li nga liggéey dafa rafet c'est ça qui nous fait plaisir waaw ouvrier moom mooy ki nga xamante ne xool soo ñëwee même soo ko joxulee xaalis jëndoo kiiwam sax mais soo ko ne dafa rafet rek moom la euh, day kontaan waaw loolu li ma gën a neex loolu ci la bokk ñëpp koy apprécier ko Mm. bon damay ne alhamdulilahi rabbil alamin vraiment loolu contentement bu mag la waaw loolu moo lay wan ne rek euh, honnêtement suñu gënee góor góorlu en tant que Afrique Afrique si boppam parce que si continent bi euh, ñun ñoo gën a nekk ci ci ci ginnaaw pour ñu mën a dépasser lenn rek la euh, moment bi la mooy moment Afrique waaw monde entier dañuy defar loo xamante ne comme tubaab am na baatu français bi ñuy wax saa c'est nickel chrome mais monde entier léegi moom moo soxla tuusu africain gisutul li nga xamante ne c'est nickel chrome mais euh, li nga xamante ne tuusu africain bi ah monde bi moo toll foofu maanaam instant yi nii ñun africain ñoo war a séddu man su may wax dama du ma wax Sénégal kese man Afrique laay wax parce que li may gis yeneen dëkk yi wallahi lazim ñun Afrique war nañ ko mun a am mais ci kaw ñu am ko ñi nga xamante ne day eh, ki nga xamante ne dañ ko jox dix mille francs ah mu séddale ko ngalla na séddale lépp ah mais bu mu jël neuf mille francs yi jox ñu mille francs waaw loolu c'est très important bon ñun euh, déjà euh, si li ñu nekk benn corps de gënul gënul mettile surtout artisan village artisanat Soumbédioune waaw parce que ñun non seulement suñu matière première dafa cher xam nga am na mbir yoo xamante ne day dundal xol soit or xaalis ah bijou xaalis nga takk ko day dundal xol dafa am ñun lu ñu gëm da ngay dem ci kenn wala sa bàjjen wala kii mu ne euh, sa doom bi takkal ko lamu xaalis mais yow da ngay ñëw ci euh, bijouterie bi nga ne ko benn lamu xaalis laa bëgg mu ne la vingt mille wala trent mille nga ne non dafa cher nga daw mais effectivement da ngay ne dafa cher parce que xamoo ko. mais pour nit ñi tam yeewu ci loolu gis nga fonction euh, xaalis bijou xaalis ju or c'est par gramme maanaam ñun matière première bi su su méttee si ñun su méttee si ñun ah si obligatoire mu mu mun a euh, xaw a saf tuuti si client bi mais du suñu faute ñun dañuy dégg ne rek fii am na or waaw mais or bu bari moo ngi jóge fii si li may dégg di dem bitim réew mu jóge bitim réew ñu indiwaat ko fii suñu jigéen ñi yow yow li nga li nga dencoon kële li mu dencoon ñu jël ko jënd ko ci benn xew dem jënd ko bijoux ñëw toog soo na naroon dépassé 3 millions si benn bijoux boo xam ne day joge Europe suñ la ko defaree fii Sénégal exemple mun na la dikkee 1 million mais léegi 2 millions yooyu fatt na turu waruñu ko bàyyi di ko liggéeyal euh, euh, yeneen yeneen monde bi moo tax ñoom dañuy dem. ñun ñun du ñu dem parce que suñu matière première moo cher waaw or or ñëpp ko bëgg ça le fait plaisir kenn ku si nekk takk ko suñu jabar yaa ngi fi xaalis comme que ñun musulman yi nee nañ or waruñu ko takk ak affaire yooyu mais euh, denc xaalis la waaw tey ji soo bëggee jënd terrain sax xoola yow da ngay dem fëgg sax or rek dem jaay ko or la or affaire la boo xamante ne xoola damay ne moox pétrole moox kii ñoo ñoo yem ay affaire yooyu parce que lu tax ñoo yem moom rek nga war soxla léegi léegi léegi léegi xaalis léegi léegi léegi nga dem teg ko si balance bi ñu jox la sa xaalis nga dem faj sa soxla loolu or moo ko mun mais comme que ñun am nañ ko ngir yàlla ñi nga xamante ne yàlla moo dogal ah, monde bi ku nekk yàlla lu la jagleel kii yàlla da ko jagleel si côté bi mais yàlla moo ñu jagleel ñun ñu nekk ay forgeron kon yàlla moo ñu jagleel tey ji ah or xaalis kon kooku waruñu ko jox kenn muy jaar si loxo kenn kudul ki nga xamante ne mooy tëgg kooku lañ ko war a jox mu yombalal ko ñu ko yombalee ñun rek xoola non dootul safa si yéen parce que euh, da ngay ñëw taxaw nit bëgg benn jaaru ak nga wax ko prix tamit day daw te xam nga bon xam nga président tamit programme am lu yor moom programme bi su xatee tam day ñëw rek euh, acte président mu def li muy def wax nuyoonte dem bon loolu doo am temps pour wax ko mais suñu mbëbët yëpp ah am na ñu ma sut nag ci affaire budgétaire man lu tuuti laa ci mais ñi nga xamante ne ñoo coiffé ñi nga xamante ne ñooy président budgétaire affaire yooyu dégg naa de ñoo ngi ciy wax wax nañ si ba sonn mais ba léegi ñun li ñu bëgg ah amuñu ko parce que jàppal ne man li may wax rek man li ma gëm rek xoola su chéré si ñun rek day cher si ki nga xamante ne parent bi nga xamante ne bëgg na euh, lam pour doomam c' est obligatoire parce que man mënu ma jëndee treize mille euh, euh, euh, métal bi jëndee ko treize mille di la ko jaayee quinze mille day metti day metti te boucherie moo nekk li nga xamante ne xoola dafa bëri touche non seulement dañ koy jël si suuf si yow mu ñëw si yow nga fondre ko nga jóge si fondre bi xam nga dem toog di ko liggéey soo paree war a def lépp nécessaire yi si def yëpp Ah, nga war ko mun a tegaat si balance bi pour jaay ko nit mais kooku soo génneewul yi nga ci war a def yëpp mais su boobaa pertement la waaw occidentaux yi nag fa la ñu rawee da nga benn bàgg bu ndaw ñu ne euh, sertir ko jamaa wala affaire yooyu ñu jaayale ko benn prix boo xamante ne vraiment yow pour te dire li ngay xam ne yow li nga ko jëndee cher na ndeke yow danga nga comprendre mi ko jënd mais pour nga mun a comprendre yow miy jënd loolu lu cher loolu ci bijouterie affaire yooyu loolu sax xaalis la ki koy tëgg ah daanaka ki koy tëdd fargeron bi xoola euh, li mu ciy am lu néew la mais yow mi nga xam ne yow yaa ko moom loolu sa xaalis mooy bi nga denc la imaginel tey ji nga jëndee euh, or bi trente cinq mille nga bëgg ko dem jaay fekkente ne dafa yokku yow plus bi si yokku yow la yow euh, ci ci ci yow ci ci yow lay dem kon kam moo si bénéficié wu kon yow yaa si bénéficier yow mi nga xamante ne yow yaa jënd objet bi waaw ba ñun daal lu ñu gënal ah euh, pour bañ a être gourmand ci lépp maanaam képp ki nga xamante ne sénégalais la ko euh, lépp looy mun munte def ah, si euh, parce que am na ay talent Sénégal am na ay talent ku les fi defaral ay jara cara non da ngay ne non macha allah da ngay kontaan kon nañ ñu gën dooleel artisans yi gis nga artisans yi suñu leen doolee wallaay lazim kenn du bëgg a génn ci dëkk bi mais ñooñu la ñu war a dooleel.